Karim ñu mën a bokk ci présidentielle 2024 euh, bi loolu yëpp ba tey gars yi ñu ngi ci seen seen ay calcul bu ma nee yi mooy le président Macky saal dans sa volonté xëy na euh, d'isoler Ousmane Sonko. c'était prévisible parce que euh, décembre maa ngi wax naan la stratégie du partie au pouvoir mooy éliminer Ousmane réintégrer Karim ak ak Khalifa parce que <laughs> ñu ne seen doole des na quoi. ñu la ñaan muy Khalifa muy muy Karim ah Khalifa il a maire de Dakar. Mm-hmm. booyam tey mooy mairu Dakar. c'est vrai. askan bi organiser benn rassemblement Dakar Ousmane Sonko nekk Ziguinchor di woo di ñaan public bi pour ñu bañ koo yuuxu. Mm-hmm. du ñu dee na ci borom xel bu dee Dakar gii la nekk ki nekk Ziguinchor moo lay ñaanal pour ñu bañ laa yuuxu kooku du yow la Macky Sall di la deuxième chose Karim Wade ñaat at a ngi ñëwul Sénégal. waxul ak sénégalais yi wàccam ci terrain bi ah man yàqamte naa déglu wolof bi muy làkk ak sénégalais yi ak langage bi muy wax ak sénégalais yi. Mm-hmm. parce que politique tamit ci Sénégal gi wolof ngay làkk wolof ngay wax ak nit ñi. est-ce qu'il connaît même sax les difficultés des Sénégalais. est-ce qu'il mm-hmm. connaît même le Sénégal. parce que aussi nekkoon na ministre mais boobu c'était les voilà le véhicules climatisés daawul jëm ci yenn kii tey aussi il a quitté le pays depuis très longtemps. te mosu koo def. Mm-hmm. voilà. élection du caaxaan de. Mm-hmm. jiite élection du caaxaan surtout élection présidentielle donc ma ba leen Macky Sall di bëggee xëcc indi leen ci géew bi boobu la ñu war a xam ne nañ demaat. wuti doole nga xam ne moom mbër yi mu mën <laughs> waaw mbër yi mu mën <laughs> lay indi ci géew indi sa Seck <laughs> non Idi moom Idi ba ko ba Macky Sall di naan mooy chef de l'opposition di reetaan war na xam ne du vraiment ñooñu non ñooñu duñu ay adversaire non wax dëgg yàlla du ñu ay adversaire ñooñu moom wax dëgg yàlla du ñu ay adversaire wax fa dëgg yàlla euh, Macky Sall son adversaire c'est Ousmane Sonko wala le candidat de Ousmane Sonko mhm. c'est Ousmane Sonko wala le candidat de